xanaa dañuy ñëw rek ci li nga xam ne mooy union sportive bu Wakaam ak problème yi nga xam ni jot na ci am ñu dégg jéego yi ngi ci dox en tant que magu euh, localité bi euh, ndax mën nga ci ñëwaat ak ñun. Euh, jàmma ji comme ni may wax rek mooy nit ñi nanu ànd ak jàmm. Sénégal bu nu histoire ba pare nanu ànd ak sunu xel xam ne kenn ku nekk war nga mën a yéene sa moroom ëllëg ba pénce yàlla baal ko ñu dugal ko àjjana bu nu dajee àjjana tukkara gi mu neex may wax ne coowal wakaam ak mbuur du lu war a mën a nekk waxoon naa ko suñu conférence ba suma papa man bi ma jur mbay ndooy mbay ndooy di suma baay dafa jël doom ji topp si man muy ko jigéen mu tudde ko Fërmata Pay sa mbuur parce que sama papa foofu la doon gëti bu fa liggéey jee bu paree bu ko maire boobu moo ko doon jaay ay jënam moo doon na jigéenam ñu indi ci kër gi ñu du lengoon dund nañ alal bi mu liggéey mbuur ba tey d'accord nañ ci lool waa mbuur tam ñu woon fii ci wakam di fi di fi gëti ji di fi jàpp jën di liggéey di verset yi tam mbuur waa ngoon tey jii su jamono doxee ba seytaane dugg suñu diggante lu ñu war a def duñ àndaa sunum xel nan àndaa sunum xel xam nga seytaane dafa bari doole seytaane bari gu doole gi mu bari doole boo ko xoolee euh, dafa am lenn lu nekk si réew mi kër Sëriñ Tuubaa amul coow am na coow waaw tey tey xaala laahu la ñuy wax d'accord nga nga ñëw euh, kër Alaaji Malik amul coow tuwaawan ku ko laal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xolam ñaati yoon Makka xolam ñaati yoon Medina te seytaane lañ ko mën a tuddee ngoon tey suñu diggante ak mbuur amee benn luux luux suñu xamoon ne coow lii dafay am ba am ay nit yu si gaañu bon kenn du joué bu kenn nag xamoon ne coow da si am pour benn bruit bi ba nit di si dee kenn du joué waye dañu jël programme bi nañ ko wékk ci kanamu ci yalla lu ngi tudd sax bato bi fi daan won ci geej kenn yaakar nak ko kenn bëggoon na lo benn nit ci yéne ko Sénégal wa Comore sax bo nee won ak bata dafa wala a sa Sénégal ray ay eh, junni junni nit dañ lay wone ah lo do yalla moom am waye amna bes bobu rew mi ko ko dégg rek yéemu iya nga wala déet àdduna kenn du ko yenu dañ ciy dox gis naa sax seen président club boobu di wax wax wax boo xamante ne du waxu waxu jullit daal te du waxu nit parce que nit ku baax donte da nga mer tey bu ëllëgee na nga meri ndawalu yàlla kenn mënu ci dërëm xeer wi sa buntu kër nga judd doon xale di si foo di yéeg di jàpp na ko di jàpp na ko ba xëy xëy yàlla ne eh, kii na pakastuwaay day léebal sam xel benn fraction de seconde nga pakastalu si si xeer bi ba mu dindi sa we te pourtant xeer bi yow miin nga ko miir boo xamante ne si moom sax si nga jàng taxaw nga toogaat sa doom léegi nga xëy jox leen sa nam dépense ñu toog dëkki euh, nga ne seen yaay maa ngi liggéey ana jaraaf moo nga liggéey fekk jaraaf oto fiir na ko bu yàgg ba dee xibaar bi egseegul si moom rek nga ñëw nekk sa waa kër jékki-jékki kenn feebar kan la fii ñu toog nii am na ñuy judd léegi nii si hôpitaux fii toog am na ñoo xamante ne ñu ngay dee am na ñoo xamante ne seen seen seen maam walla seen rakkas wala seen nangam mu nga nekk si sukuraat ñu ngay ñaan yàlla yàlla ko yàlla yëkkati te xamuñu ne day dem barka démb dama jóge fii le roi suñu invité ma ma war a dem fekke ji programme bi ak Kaber ma ñëwaat ci Kaber jaraafi Kaber su ko bañ da ngay dee wah wax ni dogalam nan ko nangu lé nga bi may dem sama yaay gi nga xamantene moy sama yaay bop di maam ñaña kan maa ngi ko bayyi ci talibi mu tok ak suma doom ju ma tudde Matar mi comme ñom ñaar ay gaayen lañu ma maa ngi ñëw damay dem fii suma kër jabar fii si Sacré ñëwaat mu ne ma waaw fekk na boobu maa ngi ko yóbbante xaalis si Papa lii sama rakk ma ne ko lii maire bi ay affaire dafa dafay doy waar da ngay jékki-jékki rek mu ne tir dem di seeti ak mbok te doo ko gis teel ma lii nga joxal ma ko ko bii ma waxee moom. bii may romb kër ga ci tali bi ma gis ko mu toog ci booru robinet bi nii sama doom toog ci booram ma reculer waat ñëw wax ak moom mu ne kii ma ne ko braawul bàyyil maa ngi dem maa ngi ñëw bii ma laa ñëw mu guddi ma nekk ci dëkk bi di tourner pour liggéenti parce que gaa yaa ngi dem ma ne léegi fi mu nekk nii naa régler problème yi fi nekk yëpp daa di dem dem naa ba bag ba ma non ndox mi dafa wàcc bag bi mënul daw fa nekk ba quatre heures ñu oo ma téléphone xam nga ma su yaay kat mu wàcc liggéey léegi te man ko bàyyi fi mu toog doo tal kan laay akki kan laa koy jiñ kan laay wax ne moo moo moo jël sama yaay te pourtant mosul bëgg a tàggoog man masuma tàggoog moom waa kooku noonu ana lu gën a métti xam nga fi xam gën a bees le moo fi am mais gën a mitti la amul fenn bu demee dara jëmee si dee dee dafa garaaw suñu mbokki nguur yooyu gaañu nag yàlla na leen yàlla xare àjjana waaye ñoom ña des bu nañu xam ne yàlla dogalam kenn musulum jiñ ko wakaamaak ñii naan waaw waaw kam ay dëmmala noog ay nangam nangam si bu mbokki kese loolu amul njëriñ ñun mënuñ ko muñ sant nañ yàlla sax bi mu nekkee Wakaam bii nga xamante ne dañuy waxtaan tey jii xale yi lu ñu lu yëkkati ñu ne leen bàyyi leen ko mu déggal ñu bàyyi ko euh, waaye man ci sama xam-xam su fekkente dafa am lu ñu war a defar nañ ko defar defarkat yi nañ jóg defar état bi na jàppale defarkat yooyu. mu defar parce que defar dafa am solo parce que réew kenn du ko xotti soo ko xottee rek yàgg yàgg yow mii ko xot di nga ko yëg da nga fekk waa réew réew mi nag bu teyee dem seet kastuloor ka tegoon sa këram bu ginnaaw léegi nga jëm lekki ku koy waxal réew mi bu wéytoon koy waxal xam nga sumay maam yi créé fii xam nga lu doon wax yàlla na yàlla na wakaam am ay gan nit ñi yàlla na ñu ñëw dëkk seeg ñun moo tax toujours may wax ne ku toog wakaam soixante douze heures wakaam gii nga bokk toujours maa ngi koy wax suma maam yooyu doon ñaan loolu ne yàlla nañ am gan dañu wéetoon xam nga wakaam fu muy woon télé américain tali bii dugg si dëkk bi jëm marché ba lii ka ga foofu mennam kër rol moo fa amoon benn tubaab bu daan jaay fii ay diwlin di dem di ay kii kër googu noonu xam nga biñ koy jaay départ jaay ñu ko sax six millions moom étage bi lépp tey jii soo xoolee xaw ma nu ñu ko jëndanteeg jaayante mais tey boo ko doon jënd ak suuf sax lépp di nga fay lu bon bon bon un milliard sama yaay waxaale na fii benn parcelle fii trois cent mill la fay sama mag feebar mu nanguwaat ko dem faji doomam ma ne waaw mu ne damay faj ma doom magam waroon na génne benn parcelle fii a trois mille cinq cent te boobu tey am na ñetti kër xam nga ñeenti kër yu ci gindi ngoon bu avancement amee si ba nga àgg si ab contact boo nga xam ne dañ ko daan teg si kaw bopp miir wala nangam di fës nga toog ba ñu gis ampoule bu ñuy kii bi contact bu ñuy bii nga xam ne avancé nañu si côté boobu dañ war a avancé nag jëm ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mii ñëpp mii mii meññ mii nga xamante ne ñun moom la ñu gëm bu dee chrétien na gëm ne euh, Jésus Christ waxu ko pour mu histoire Jésus daf ne bokk yëpp ànd boo xoolee si dañ ko ba yooyu laa wax de maa dem ba église ba toog suñu bokki chrétien yi def seen julli ma déglu lii ni wax jàmm kese na nañu soir ci mbedd kenn ku nekk na nga respecté sa morom kenn ku nekk na nga téye sa morom waaye bu ndogalu yàlla ñëwee nag ñuy def dañ war a toppaat te ñu dégg ne sax nit bu dee dañ ne la bul ko jooy boo jooyee jooy yooyu ngay jooy ra nga yooyu di génn day doon ndox mu tàng ñu sotti ko si ay noppam waaw bon nan la ñuy toog ñun Sénégal ak fi ñu toll ci Serigne tuuba Alaaji Malik Limaamu Laay Bun Njaasaan nangam nangam boo ma laa dee nag ñu xam ne ñooñu ñëpp suñuy maam lañu ñooñu ñëpp Seydina Mohamed lañu la ñu gëm waaye nag bu mitit ñëwee ñu bëgg ci ñëpp loolu mooy lan loolu diine la loolu ñàkk wóolu yàlla la su ko waa kam defon mané da ngay ñak wóolu yalla nañu baye xel gis événement bi am ni ci digënté Wakaam ak Mbour dafa doon lu nekk rek mais bo xolé 92 vingt douze Wakaam arrivé nañu fi ñaati ñu ñoo ci si Wakaam mooy ñii karapi bi fii doon si mat mat ci Sénégal xawma kan bo fi dañu teural ni ñi si biir kii bi euh, marg bi ñi ñu teural len ci souf lal lal ay basan teul len ci souf di sanga di sul dañuy tok ci biti sanga julé sul sanga julé sul sanga julé sul lol neex na ci dekk dekk bepp amone problème lol lol dal na ci waxaam d'accord ngeen won tay suñu ëccee ci façon bi dañuy sante yalla atté bi nag ñëlé atté ñun ñoom ñoo yor lu ay football kii atte atte bi boo ko xoolee mooy atte atte yëpp moo fi atte ba Sénégal gi mën a dem Coupe d'Afrique wala de waa ngoon kooku noonu moo waxaat ne ngoon ma kaam jëlul daful daful tuuy lépp lii lay def lii ak lii li mu tëral noonu nañ ko defee noonu rek avancé dem fi moom te bañ faté ni wi di len ñaanal waaye buñ fi nekké naan non non non parce ko dégg naa waji mo xorop wax keroog bu ko kenn ben xalé déglu ci réew mi que wakaam bu ñëwee mbuur ah alors même ñaar yeen ñaar équipe yu mbuur yi sax bon bu bu bo wakam ñëwee mbuur lool waxu lan la bo waxé wax boobu wa wakam ñet yoon la ñuy dem mbuur pour fubali tek ñi nga xamanteni ñoo rew mi def na né dégg nañ ko té danañ éviter pour que lolu di am ba war nañ mëna jël match yi ak wakam bépp équipe mbuur ci wakam yobbu ko ci waye ñi dëkk wakam bu ñu top wax bobu nañu sét ña baax sa mbuur parce que kuy wax wax bu baax da nga joggé ci famille bu baax ku waxu lo bu baax c'est parce que jogulo ci famille bu baax parce que nit ko ci bu ñu naxanté hein ah. do yow rek day khalis rek for ko dugal sa poos xaalis dafa dul seexlu nit am am parce que bu fekkoonte ne ku ku civilisé rek am ngoon ku am di nga jàpp ne yaa civilisé waaye xaalis la mag ñi wax ne du seexlu bu doon seexlu du fekk koy wax bu ñaaw di dóorante ay bopp ay xale pour que xale yi bu ñu déggee nañ histoire nañ histoire xale bu ñu histoire rek xale kana histoire ay togale la lu ñuy toggalee ay sénégalais lañ waa Wakaam ay sénégalais lañ ees nangam nangam foofu dem bu ñu waxee ees tax nga bëgg xalaat sa dëkk sa réew réew mi